jërëjëf euh, mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi fii ci Touba Aslem ci kër gi nga xam ne mooy kërug soxna may Maymuna di kërug Laylatul Qadar ci kanam jëmm ju tàdd ji di sëriñ Modou Mahfous Mbacké mu soxna Maymuna xam ngeen ne daayira yi amal nañu ay siyaar gis ngeen leen léegi niñ doon indilee seenu addiya ci kanam sëriñ Modou Mahfous waaye xam ngeen ne waxtu wi démb euh, am nag ñenn ci taalibe yi ñoo xam ne andi nañu seenu addiya donte ne màggal gi sax xam na des na ñetti fan ba ñeent waaye taalibe yi ñu ngi wéy di indi seen i addiya lii nag bokk na ci addiya yi nga xam ne jotagoon naa ñëw fii nga xam ne mooy kër gu laylatul xadar gi ci wàccaayu bis boobu nga xam ne mooy bisub laylatul xadar euh, kër gi ñu nekk nag tey am na histoire bu am solo muy soxna si ni mu ci meloon ak ni mu ko bëggee woon ak ni ko fonke woon ak it ni ko kër gi ñoree woon bu ñu koy liggéey defoon ko kër goo xam ne këru Laylatul Qadr la ko tudde woon waaye doom ji mu fi bàyyi tey muy Serigne Modou Mahfous wéyal liggéey boobu ginnaaw bi fi soxna may mun a bàyyi ko fii fi la def ak dundam fi la def léppam fi la nekk féete fi ngir fas yéene fee liggéeyal waajuram woo soxna may mun a weer bi mu teroo ak léegi kër gi ngir xam nu waajuram meroon ci kër gi ngir dundale fi bis nga xamante ne bi mooy bisu Laylatul Qadr moo tax dayra yi xam ne ñi ngi ñëw ak njaboot Serigne Touba gi nga xam ne ñoom it xam nañ ne màggal gi dana xat ba tax nañu ci bare bare ñi ngi ñëw ngir teel a gis sëriñ bi ngir saafante ak moom kon dañuy bàyyi Alaaji Mbay Jeng bu ko defee mu yëkkati ay kàddu yu soññee kàddu yoo xam ne dana jëmaat ci bokk yi nga xam ne war nañoo ñëw wuy si màggal gi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bu wërëngal képp ñu xam ne bis bi incha allah des na ñeenti fan ci kanam alxames mooy doon màggal gi incha allah bu ñu nee ginnaaw suba lay talaata ji am na conférence bu mag boo xam ne dañ ko def fii ci kër gi ñu tudd ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Khadimou Rassoul kon alaaji Serigne Mbaye Dieng bisimilah. Modou Mokhtar Diop li nga wax ma yem ndax mat la sëkk waaye Sëñ Tuubaa du jeex Sëñ Tuubaa mbiram boo tàmbalee xam nga fee tàmbalee ay fo loolu mooy leeltu xadar ndax leeltu xadar bi ko soxna may mu ne tàmbali ci at moomee boo sëñ Fallu ne fi maam am ci ndigal ci guddi gañ ko defee mu yaandi gaar gañ ko tàmbalee woon sëñ Fallu la mu waxoon soxna may te moom lu ma a wax yàlla def ko te dafa jóoboon ak soxna si ndax xaman yéenam ci sëñ Bamba mu ne ko may mu ne ko mbàkk mu ko ko tàmbalee ci ganaar ba ci béy ba ci xar ba ci nag ba ci ba waaw di nuyu bokk yëpp di nuyu sëñ bu tedd bi nga xam ne waajuróom bu baax wa moom ci moom la ñu jëkki daayira bi te dañ ñëwee di ko jibale si daayira bi dañu ne jàkk nañu yéen waa asalam yéen laa am ñun ko nit Mbàkke Balla réew rek la am loolu nag lan daal di fidliwaat suñu laxasaay bu baax a baax a baax bi fi jógee nag noo ngi si sëñ ma Maxuus mii ñu di ko ñaar yal na fi yàgg ñu yàgg koo jiite jox daayira bi nit yàgg koo indi daayira bi ñu sant soxna May mii nga xam ne mooy May Jang mii nga xam ne sonn na ci moo laxasaayu takku nii nga xam ne ñoom la jiite daayira bi laxasaayu takku te jigéeni asalem moom tubaarkalla masallaa ndax na nga ni barki démb nanu yóbbu suukar ñun sëñ Tuubaa rek la ñuy liggéeyal kon nag tey gii ñu te tey jii moom lañ fas yéene ñëw fii si kër gii bëgg indi daayira bi ñun ba ñu jógee ba tey ñu koy ànd ak yéen ba mu jeex takk kon nag ñooñu xam nga jigéen ñu am jom la ñu jàmbaar leen ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ñu yàgg dox lii da yàgg ko indi ci doole sëñ Tuubaa ak soxna May mi nga xam ne moom lañ ko fa jëkk a jébbal mu ne yàlla na jëm kanam wutal nu tur ni lii bu sooba yàlla dina jëm kanam loolu rek la ñuy ñaan jërëjëf jërëjëf waxal. sëñ bi ñoo ngi lay siyaare di ñaan yàlla guddal saw fan wéral saw ci wot gi ñëpp li ma ciy dool li yàlla sëñ Njaay mi wax nag doy na li ma ciy dool daal mooy li nga xam ne daa xew te jaaxal ñëpp mooy ñi nga xam ne si dañuy dogaale nit ñi ak musiba ak balaa yi nga xam ne mi ngi wàcc ba di ñaan yàlla nga ñaanal nu mujj ci ak jàmm ak salaam ñaanal njaboot gi ñëpp ndax ñun kat fi mu ne jaaxle nañ lool kenn ñemewut a génn kenn ñemewut a yónni sa doom ndax koñ bi am na ci ruq yoo xam ne lëndëm nañ lool amuñuy làmp am na ci it agresseur yoo xam ne ñu ngi fi ak ay gone yu góor yu dogaale yooyu yëpp nag tiital nañu noo ngi ñaan nga ñaanal nu ci nu mucc ci ak jàmm a ah, ba saa yu màggal gi ñëwee rek nu def na daan def ñëw siyaare di ñaanal nga ñaanal njaboot gi itam ñi nga xam ne dañoo amut tànk nga ñaanal leen ñu am ko ci jàmm ak salaam ñi nga xam ne seeni borom ko dañoo génn nga ñaanal leen ñu ñëw ci jàmm ñi seeni doom génn nga ñaanal leen ñëw ci jàmm ñaanal njaboot gi ñëpp daal jàmm ak salaam ñu teewe ko na gën dewe wa salaam na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bi nga xam ni mooy maskanu as-sayyidatu al-maymuna al-karima soxna May Mbàkke bintu rasul nga xamni da ko defaroon ngir waajale ko fatliku bisbu wu tedd bi guddigu gu tedd gi nga xamni moy laylatul ci wéru tedd nga xamni moy wéru koor nga xamni mo gën ci fukki wéri ak ñaar ñu tok ci kanam dom mu yag liggéeyal wajuram wa soxna May Mbàkke ngir sàkku ci ngërëmul maam Cheikhul khadim sàkku ci ngërëmul suñu boroom sàkku ci ngërëm yoon saa sallam sàkku ci ngërëmul soxna May kon yàlla na ko yàlla defal euh, nu koy njortam te mbokk nu taalibe yëpp euh, di rafetlu seen teewaay bu baax a baax yow soxna May Jóob yow mi nga xam yaa jiite daayira bi te wax ci seen euh, tur ñi ngi rafetlu sa teewaay bu baax yaa mboolem ñi nga àndal soxna Ndey Jeng soxna May Jeng soxna May Jeng yow moom Jeng Jeng moom rafetlu bu baax a baax sa teewaay ci kanam sëñ bi ak daayira bi nga àndal ngeen bokk di liggéeyal Serigne Touba comme ni nga ko waxee liggéey Serigne Touba nag mooy li nga xam ne moo am solo ndax ci la ñuy rawee tey ci la ñuy rawee ëllëg ndax Serigne Touba suñu borom da koo may tey may ko ëllëg te loolu da koo wax tey ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi sax ci li may liggéeyal na nga leen may tey may leen ëllëg wax di xawaa ijal lazina daamu fii xidmati wa hab lahum maaraamu ñi nga xam dañ may liggéeyal sax ci di ma liggéeyal yow sama borom maa ngi lay ñaan na nga leen defal saadatu daare ni maanaam nañu am texetal tey am texetal ëllëg texetal tey nag mooy nekk ci àddu dund dund gu neex dund dund gu tey goo xam da nga am teraanga am fi sutura taxital ëllëg mooy faatu dem àjjana yàlla na yeex kon Serigne Touba ñaan na lool kon Serigne Touba fàggul nañ ñaari kër yëpp muy kërug tey gi ak kërug ëllëg ni ku ràññeeku la euh, a liggéeyal euh, la dàkke ni Serigne Touba daal moo gën ci weer yi muy weeru koor dàkk guddi gi nga xam moo gën ci guddi yi muy guddi laylatul xadr nga xam ni guddi la goo xam ne wax nañ ni moo wecc junniy at te guddi la goo xam ni jibril mi nga xam ni mooy aminul wax yi nga xam ni mooy jiite malaaka yi day wàcc ci guddi googu ànd ak malaaka yëpp di ñaanal jaami suñu borom yi nga xam ne ñooy dundal guddi gi euh, ba fajar jot ci lépp luñ bëgg ci lu baax suñu borom defal leen ko lépp luñ ragal suñu borom dàqal leen ko moo tax kon guddi la goo xam guddi la goo xam li ci nekk ci ay mbóot lim làmboo kenn mënu tax soxna si keroog ko jëkkee xalaat ni man daal sama waaju naa ko liggéeyal waaye damay dàkk guddi gi ko ci daal di wut ñaari ginaaram te yooyu jamono ku ne xam na nañ jamono jooju booba jamono melu ni tey booba jamono neexul waaye yitteem ak pas-pasam bu kawe euh, moom la jiital ndax pas-pas ak yitte dafa am solo ndax fu nit yegg rek yitteeg pas-pas moo la fa yóbbu mu daal di dem wut ñaari ginaaram dal di koy defar ba mu baax booba Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacke moo fi nekk xalifam Serigne Touba mu daal di jóge ca Daaru Musi booba war waay yombut waaye ba mu ko waxee sëñ Cheikh Balla mi nga xam moom la nekkoon ci këram di fa jaamu yàlla muy waaju sëñ euh, Mouhamadou Mahfouz mu tedd mii mooy ñu ngi ñaan suñu borom yokki leeram loolu moom Cheikh Awa Balla ak waajuramu ngi sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem sëñ mii nag moom day sonu lépp ndax sëñ làmp mi nga xam ne moom dañoo yàgg lool ca sëñ maam Thierno ca ca ca sëñ Modou sëñ Cheikh Balla ba ci soxna may Maymunatu mii ba tax na sëñ Modou Fous mi nga xam ne moom la ko duppee ma nga ñu bàyyi ci kër ga ma ngay waaj di ñëw noo ngi nag fettali sunu positif bu baax a baax a baax te ñaan sëñ Modou mi taxawaayam bi yàgg lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu Xaadimu Rasuul ak mboolem jullit jullit bu góor ak bu jigéen lu xew rek mu yónnee mbaa mu ñëw loolu nag noo ko ci sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem ndax mënoon na yónnee mbaa yóbbante mbaa muy téléphone te defu ci lenn lu nu xewle rek. lu mu néew ne rek sëñ Modou dëgg ko tànkam ñëw ànd ak mbooloo kon nag loolu sunu saga sunu tiitare ci sëriñ Touba noo ngi koy ñaanal yal na taxawaayam bi yàgg te nu ànd koog moom. ñii nu ànd nag di liggéey liggéey bii di day def suukar si nga xam ne ba fi soxna may nekkee ba léegi noo ngi koy dajale di ko indi mu ne di ko indi fi asalem yi nu di ko fi indi at mu jot. ah ñi nga xam ne noo ko ñoom lañ ko ànd leen ku ci mën a manqué day itam faaw sa li nga li ngay joxe dina ñëw. ak yitte joo mën a am da nga ci am positif am ci pas-pas nu teew fi teewaay boo xam ni sunu yéene ji sunu jëf ji sunu jëf ji sunu yéene jee ko ëpp waaw li nu yéene asakaay liñ fi indi la kon nag noo ngi koy ñaanal tey ñaan taxawaay bi yàgg tey ñaanal mu lépp loo xam ne indi nañ ko fi mu di ay jafe-jafe ak i coona ak bëgg bëgg a lëggéeyal sëñ Touba lëggéey ban ko ba war a lëggéeyal mu nekk ci sunu xol yi te nekkut ci sunu sunu am am mu ñaanal nu nu am pas-pas bu koy yeggale te nu ànd koog moom ak mboole mu jullit ci daraje sëriñ Touba. ak Saali Mbàkke fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jóge te ñaan bu yàlla yalla na ko yokkali leeram mook ñam fekk ak ñu ko fa fekk ñëpp ñii nga xam ne moo di mbooloo mi ma àndal nag maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax dëppuñu benn yoon yokkute rek la ñu gis te yow sëñ Modou ñu di ñaan ci sàkku ci sa barke ak sa barke maam nga ñaanal nu sama daayira bi ca kaw ca kanam nga ñaanal nu yokkute xéewal yal nañ fi indi lu kawe sunu njort te yàgg la fay fekk Mbàkke yal nañ fi yàgg te wér ñaanal na nu yàgg fi te am yokkute gu nuy mën liggéey ci yoonu Serigne Touba sant naa ñi nga xam ne ñoo di topp ci sama gannaaw. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu lu bari di la ziare bu baax a baax di tuub ci kàddu yi ñu yëkkati sa ci sa kanam wax dëgg yàlla tey ñi ñu àndal ñoo ko waral rek waaye bu du loolu sax ñu yëkkati genn kàddu fii. ci sa kanam ñu ngi lay nuyu lu bari di la ziare bu baax di la jot li nuyoo waa Touba Tivaouane gi nu bàyyi ko mu lay nuyu lu bari ñii nag ñooy ñi nga xam ne ñooy sa daayira bi nga xam ne ñoo nekk Tivaouane Touba Tivaouane ñoom ñoo fa féete ci njiitul soxna may Alaaji Mbakke ak soxna Fall daayira bi nag ñu taxawaloon ko ci ndigalul soxna Fall yi soxna Fall bi njëkkoon a yor daayira bi ab diir bi fa soxna may ñëwee mu jël daayira bi jébbal ko ko mbooloo mu bari lañu nag àllarba ñu ne la ñuy daje foofu ca kër ga di dajale seeni addiye def nañ ko lu yàgg ci kanamu soxna Bally yàlla na yàlla dolli ay leeram yii mooy bu njëkk ñu indi ko yàlla nañ leen fi yàgg fekk lu baree baree bare te yàlla def lépp di taw feex soxna mi nga xam ne moo jiite daayira bi ak soxna May wax nañ ni ñu ngi lay sant ñun nag kër gi mooy suñu kër na ma ko waxee woon fee léegi bi ñu juddoo. mbooloo mi maa ngi nuyoo maa ngi nuyoo tey sant sëñ Touba di sant sëñ Modou mi nu fi fekk te di ko ñaanal fan wu gudd bu ànd ak gu nu yàgg man nak xawma lu dul kër gi fi la yaro ci kër ga ci daru Musi itam sëñ Cheikh Mbeng mi ak soxna mbien mi nga xamne mo yor daayira bi jiite nu di sante mbolo mi di sante sëñ Touba sëñ Mour dal ma ngi koy ñaan rek mu yag fi lol te nu yag ko nun rahim mbolo mi mal di tour ak seen sant mbolo mi na ñep ànd benn kàddu ñu ñaanal soxna may ñaanal soxna Bali yàlla yokk seen leer yàlla ko yàlla def sëriñ Muntax sëñ bi du Seck mi ngi poor fa ngeen xamante waaye dafa am benn usine fii si si gare routière bu bees bi te pàkk bi Serigne Saliou moo ko joxe yàlla ñuy dem di dox ñuy dox ñuy dox pour mu def si ay usine usine bi mu ko defee tamit yàlla addu ko ak yonte bi seen Tuubaa ak Serigne Saliou mu indi nu ay xale yoo xam ni Fallou Diop Papa Ndiaye kii sun sëbër bu mag la ñuy dox di dox ba yàlla gën a yaatal mbir yi maanaam dem na ko ñetti at sëñ bi sekk nee nga ñaanal xale yi yàlla may si usine bi mu gën a yaatu seen diggante nag moom xam na ko mi ngi ñaan lépp loo xewle lépp loo jàpp te mu yëg ko na teg loxoom nee na nga ñaana ko yàlla yont bi ak xale yi fa nekk ak njobootam ak taalibe yi yàlla may leen fond gudd ak wér-gu-yaram xeewal mi indi nag glace mi ngi si ndawal mi ngi si glace bu saw mi ngi si ak ndox mu bari loolu booy def booy def addiya sax addiya alayha ak sayidatu baali mbàkke ardaahuma allahu wa adxalahuma fasiha jannatihi bi jaahi cheikh al xadim ñu ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ci weer bu tedd bii ci barab bu tedd bii ci événement bu tedd bii nga xam ne moom la ñuy séntu muy laylatul qadri nga xam ne xayru min alfi shahrin wa salaamun hiya xatta matla al fajri moo gën junniy weer te guddi la goo xam ni ku ca fanaanee jàng alxuraan fanaane cee zikar fanaan na ci naafila fanaan na ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi fanaan na ci jàng xasida Cheikhul Xadim fanaan na ci jàng alxuraan sunu borom dana la may lépp loo bëgg ci liggéey mébét e, tey di nga am jàmm ndax malaaka yi sax dañuy wàcc ci ka leen di jiite mooy Seydina Jibril alayhi salaam ñoom dañuy ñëw nekk jaami suñu boroom yi di leen sottil jàmm di leen ñaal seen borom mu musal leen ci lépp lu luñ ragal e, ba keroog fajar gi fekk kon yàlla ñu ko yàlla fekkeloo ñu taxawee ko ci ginnaaw sëñ bi ak mboolem njaboot geeg mboolem taalibe geeg mboolem mbokki mbàkke mbàkke mi ci biir dëkk bi mbokki mbusoo beeg seex seeg yépp bàyyiwuñ kenn ndax euh, liggéey bi Serigne Touba moom ku ca génn sa bopp yaa ci génn sa bopp waaye ñëpp ci lañ bokk te Serigne bi liggéey bi ñëpp la ci boole ba mu ko jëlee ci soxna May jëlee ko ci soxna Baali ba ba tey suñu borom teg ko ci ay loxoom euh, amul kenn kum ci génne bokk na ko mbokkam yëpp fan yi yëpp boo ñëwee fii ci kër gi sa day sedd ndax mbokki mbàkke mbàkke fu ne la ñuy jógee ak borom xam-xam yi ak mbokki seex sa mbokki musóobe yi ñëw fii ci kër gi mu leen di berndeel di toog di waxtaan ak ñoom di jokk bokk gi di jokk te loolu dafa am solo ndax Serigne Touba loolu rek la bëggoon te yàlla loolu la bëgg yoon loolu bëgg soxna May loolu la bëggoon kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba mi nga xam ne nag moo waral lépp ndax Serigne tubaakat la tubaab bi bëggoon ci moom fekkoon amoon na ko kon nëgë ni kat kon ñun duñ tala nekk fii di am jàmm ba lii ñu koy def yii ñu ci organisé yëpp ñu koy organisé kon nag lépp lu ñuy euh, def war nañ ko ciy jiital ndax dañ ni euh, euh, bu kenn du nataal ci tungu du teew ñuy nataal ci ëkk. bu Serigne Touba euh, taxawul woon taxawaay ba mu taxaw ci kanam tubaab bi euh, bañ bañ gam bañ euh, diina jaral ko bakkanam jàmmaarloog moom ndax du moom rek la tubaab bi songoon waaye ñoom songoon ñëpp am na ci moom ndam menn moom moo ko jaaxal kon moom askan wépp amel nañ ko njukkal waaye Sénégal gépp amel nañ ko njukkal waaye lislaam bépp amel nañ ko njukkal kon nañu sant Serigne Touba bu baax a baax a baax te delluwaat suñu bopp ci moom doon ay taalibeem fas yéene jaayante pour liggéeyal ko. bàjjan ma nga xam ne moom lañ ko daan yëtt itam te léegi mu jiitu ñëw itam yàlla na yàlla dolli ay leer fam ne taas ñu si barke sëñ Touba di jégalu kàddu yi nag bu baax di sant rek ñi nga xam mom moom la laa boot ñu topp si man wax dëgg yàlla ba ñëluñ ma dara fu ma taxaw ña nga fa taxaw sonn lool ma bëgg nag nga ñaanal leen bu baax Mbàkke baal la ñu fi indi ren bu déwénee ñu indi fi lu ko duubal ci te yàlla ak Serigne Fallou Mbacke nga ñaanal ñu wér ak gudd fan ak wér ak njaboot keeg yëpp ngi wax bi ki mo tax. ci kër maanaam kenn ku ne mel ni bis bi sa bisa la nga doon def soxna may ak soxna baali nga ànd ak kook moom ak sëñ mulu ba sama borom dogal tey soxna baali làqu sëñ bi des fi ak taalibe yi des fi ak bokk yi yàlla ko fi yàlla yàggal te wér ko te musal ko ci lépp te lépp lu mu sàkkul soxna may sàkkul ko mm, soxna baali ak noo ngi leen di seeral ne soxna mbooja sëñ bi gërëm na ko ndax euh, daayira bi nga jiite te muy daayira mbooloo nga ànd ak ñoom ñëpp ngeen di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal soxna Maymuna ci yéene ja ngeen amoon ci moom ngeen yokk ci sëriñ bi maanaam sëriñ bi gis na ko te ñi nga àndal liggéey bi barkeen ku ne bu ma tuddee Mbodj tudd naa tur ndax yéen a bokk bëgg bokk yéene bokk ab takk bokk bëgg-bëgg sëñ Modou Mahfouz ak soxna Maymuna kon nag sëñ baa ngi lay gërëm yaa ngi mboole mbooloo bi nga àndal daayira bi nga xam ne mooy daayira Madiyana dañu ànd jëf ko te buñ ko jëfee boo ci yëge fa kenn du yëg seen kàddu loolu seen yéene xool ak seen jëf rek la dañuy xam kon nag sëñ baa ngi leen di gërëm ma ngi leen sant di nga xamal ne it kenn ku ne bu ngeen delloo sax ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey ak jàppante ci bokk ak jàppante ci diine te yërëmante te dimbalante loolu sëriñ baa ngi koy dénk mi ngi leen koy digal gannaaw bu loolu itam maanaam ñi nga xamante bii ñoo di bokki taalibe yi de ci biir réew mi par kenn ku nekk sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp ndax bis bii sëñ bi nee dafa nekk ak yéen ànd ak yéen doon ko liggéey soxna may tey jii ànd bi noonu la ko yàlla dogalewaat ci moom ak yéen kenn ko ne jàpp ci am ci yéene am ci bëgg di ko jëfe di ko doxe di ko waxe guddi gune ak bëccëg gune ñëpp fi ñëw a fi teew te bu ñu teewee kenn koy day mel ni yow rek yaa fi yooyu liggéey Sëñ Tuubaa kon sëñ Mourou Mahfouz nee na mi ngi gërëm mbokk mi mi ngi moom jenn diine la kon diine yëpp ak tarixa yëpp sëñ baa ngi leen di gërëm gannaaw bu la wéyee Oustaz eh, Fall sëñ baa ngi sant ndax yàgg eh, Modou Mokhtar Diop mi seenam liggéey rafet na tax nii nga koy liggéey sëñ bi nga koy liggéey ci kër yëpp sëñ bi ne dañuy teg suñu rakk yu tedd yi fi nekk di soxna May Muna Mbakke ak soxna maam ma Mbacké moom sëñ Moura Balla. di nuyu nag bokk yi ànd ak ñoom yëpp bàyyi koo daaru ñëw fii ci kër gi. di leen sant bu baax. sëñ bi ne di leen sant nag bu baax a baax. di leen gërëm bi ne di leen nag bu baax. da ngeen a baax te xër rek. sëriñ bi ne da ngeen a baax te xër rek. te jeex tàkk ci soxna May. te jeex tàkk ci soxna May. waaye bis bi noo ci yem waaye bis bii sëriñ bi ne noo ci yem bu ngeen dajale woon daayira yi. sëriñ bi nee bu ngeen dajale woon daayira yi. yow soxna ma yemu. yow soxna ma yemu. yow soxna maam Faati. yow soxna maam Faati. yow a Mbàkke. yow soxna may mun a Mbàkke. sëñ bi nee na bu ngeen dajale woon daayira yi ba mu noppi itam. sañoon bi nee na sañoon ko téye fa daaru ni ngeen ko andee. ndax noo ci yem képp. ndax noo ci yem si meññee. sëriñ bi nee na ni nu soxna si meññee. noonu rek la leen meññee. da ngeen a bi ne kon nag da ngeen a xër. jàpp seen bàjjen. te jàppoon seen bàjjen lool. te ko foo xam ne lool. te teg ko foo xam ne kawe na lool. jàppewu leen ko waajur. sëriñ bi ne jàppewu leen ko waajur. da ngeen ko jàppe ab sëriñ. loolee nag rëy na ci ñun lool. sëriñ bi ne loolee nag rëy na ci ñun lool. ndax koo xam ne da nga ànd ak doomi sëñ Touba. sëriñ bi ndax koo xam ne da nga ànd ak doomi sëñ Touba. di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. sax ci di ko liggéeyal. sax ko liggéeyal. ba mu gërëm la. ba mu gërëm la. ba nga làq ngërëmam. ba nga làq ngërëmam. ba noppi koo gis. ba noppi koo gis. boo bi ne boo yemee si loolu rek doy na sëkk. waaye bi ngeen noppee gis soxna si itam. sëñ bi ne waaye may mu ne itam. te fekk mu gërëm leen gërëm lu wér. te fekk mu gërëm leen gërëm lu wér. teewul da ngeen a feddali seen i laxasaay. teewul da ngeen a feddaliwaat seen i laxasaay. mel ni soxna si may mën a jógu fi. seen pëstëf la. sëriñ bi ne loolee seen pëstëf la. ak seen yéene. ak seen yéene. ak fonk ngeen fonk soxna si. ak fonk ngeen fonk soxna si. ak téy gu ngeen téye soxna si. ak téy gu ngeen téye wala soxna may. waaye liggéey bi ngeen ko liggéeyaloon ci dundam. sëriñ bi ne waaye liggéey bi ngeen ko liggéeyaloon ci dundam. doyoon na sëkk. doyoon na sëkk. ndax gërëm na leen fi suñu kanam. sëriñ bi ne ndax soxna may moo ne gërëm na leen fi kanamam. waaye nag da ngeen a xeer rek. waaye nag da ngeen a xeer rek. sëriñ bi nee na moo tax li ngeen def tey سيرين مور محفوظ نين اللي في من لول خمنا تير بمام تشانت مم جنا مشانت سيرين بنين خمنا نتير بمام تشانت ميمونة مم جنا مشانت ميمونة نك ورفت من جنك مم دار موت لب دار موت نك ورفت من جنك مم دار موت لب دار موت بوكو دار موت بوكو دار موت شنو باي بيفنا كتم شنو باي بيفنا كتم sëñ Abbas di sëñ Abbas moom borom daaru cër ba mu joxoon soxna may cër ba mu joxoon soxna may moo na ca jamono jëkk ya ca jamono jëkk ya dara umpunu si sëñ bi ne dara umpunu si loola ragal naa doom ji mu ko tudd ne ragal naa doom ji ko sëñ Abbas tuddee bu amee magit kenn lay doon bu amee magit kenn lay doon sëñ bi ne kon nag noo ngi sant bu baax noo ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen gërëm nag bu baax di ñaan nag ci barkeb Serigne Touba. sëñ bi nee di ñaan nag ci barkeb Serigne Touba. ak barke borom Darou Mouti. ak barke borom Darou Mouti. liggéey bii nu nekk. liggéey bii nu nekk. nu yàgg ko ànd te lépp lu ñu ci taatan. te lépp lu ñu ci taatan. mbaa lépp lu ñu Serigne Touba di fay. yàlla na ko boole lu ñu ñëpp. nu yàgg ànd nag di liggéey Serigne Bamba. di liggéey soxna may ci bisam bii. bii defal nu ndimbal te suñu borom defal nu ci ndimbal ak tawfeex man day ci ngërëmul sëñ Touba man day ci ngërëmul sëñ Touba ngërëmul borom daaru day ci ak ngërëmul borom daaru musi ngërëmul soxna may mi leen tax a jóg day ci ngërëmul soxna may moom mi leen tax a jóg sëñ bi ne xolam sedd na baax sëñ bi ne mi gërëm ñëpp ñëpp kenn ku ci nekk nee ñu fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk cër ba nga am ci soxna may moona amoon ko ci soxna baali am ko ci kër gi sëñ bi ne darum ump ndax sëñ bi ne man Darum musi laa gane aduna fala yaro fala jange darum ump fa sëñ bi ne ma ngi sant bax bax mbak yalla nga yàgg ci kanam mbolo mi yàgg fek sey bok ndax soxna Marimu li sëñ bi wax mu jëm ci yeen jëm ci bok yi nga xamne mo ngeen bayyi daru ak ñi ngeen àndal sëñ bi na loolu moy li ne fi mom te loolu moy limu xam ndax ne fala jiro fala yaro fala jange kon nag Daaru Musti ña fa nekk liy bokkam ak ña fa nekk daal bi parce que ba ñu doon te nekk te sëñ bi ne teg na ci bët bu yàggoon bi sox si nekk ngeen di ko jëf moom ak soxna may mun a booba yéen a ci yem képp bi sox si jóge bàyyi leen fii ak moom itam ngeen yemaat ci képp kon ne da ngeen sawar te baax te laabir waaye maa ngeen laaj lépp a toog Daaru Musti te du ngeen def leen